bismillahi yéen muriti Sénégal maay marsial fi génn góoru seydi rijal bismillahi fi génn góoru seydi rijal war na muriti daaro moo yàgga war ci yàlla waaru war na sëriñ tuuba waraale cerno war bàcci ante ceebo jaamu war nu war na sëriñ gaawaan te war borom saam war na sëriñ aafiya rakam jarna saam ورنا خليفة الخديم المستوى وارفع لله مبكي له مستوى waaye la yóbbu woon génnu góoru Sénégal du mën a bàyyi Cheikh ma dooni Omari Jaal waqal bu loolu moo ma jooyloo Cheikh mbàkke muy foolu weetal na daaru dellu weetal tuuba ak daarul manaan balaa isaak pay ba la mu defa daaro doy na xeeti xar baax wolof lu ngeen añaan añaan ne moo baax maam cerno faati sëñ ci daarul muxti muqtil fadaa il loolu ko fàtte Seex Awa Balla sanc daarul manaan defa ñaari muridi gu mar naan Seex Awa Balla sanc na sellal ko muridi waaju ñëw boobu Seex Awa Balla moo safoon muriidi ci ay jikkoom ci ay meroom xaliidi seexa wa balla daldi dem ti waawoon dëkkal cosaan la may yëpp yëppi baawoon sikaab la am kër fañu naa ndakaaro di woo muriidi ñëpp ñëppi waaru ku weddi nga laaj ko ibra jaxate mooy woo muridi te maa ko waxati ñu naan bayit mu daldi dem Bambey samp fa kër tana muridi ngeen bay amoon na kër fa mbaba gaaraas di màggal am kër fa Louga loo am kër fa Jurbel seexawa bal yaa xafaaru sunub daana dem ba banjul jàll ca bag ba jàll gaay banjul Cheikh Awa Balla moo safoon muridi caay jikoom caay meloom xaridi barke ba woon ci Cerno Ibra Faati ma Cheikh a ko ay mayam di baawaan bayra ba woon canaar ba seex siidil muxtaar seexa ko donnu ay mayam di baawaan melow sëriif la yoroon yaa xafaaru yaa xafaaru yaa xafaaru sunoob melow sëriif la yoroon yaa xafaaru sunoob yoroon fa daaru balla ay sa doy nuus hikam la daan waxtaane moo dib yaaram har baax la daata koone leen ko alam wàcci nga jaajëf bala ay saak saajo loo def def nga ko ci fa jaajo filu ca aljana ca xoorul xiini may wax say manoore kulle xiini ne ma lim-lim du tax ma jeexal say manoore mbakke yaa giijal taafeer mam cerno sigil di gaale seydi rijaal ibra joobay jaale solal sa dalli baay te xeñ mbooram sa baay bu baax ba kenn gisul moroomam uufal njaboot gi mbakke balla bu nu jooy te yor jirimi balla ay sa bu nu yooy Cheikh Modou Muxtaar Mbakke balaay sa Mbàkke tànnee fii tànn nan la feeñ nga Mbàkke sigil ndigaale maa ngi leen di jaale doonay sa maam ja kay ka yàlla faale atix sigil ndigaale nooru diine Seex Awa Balla Mbàkke may foolu Seydina Ababakar Siddiixu dunal ma rindan yaa adiixu Cheikh Modou Makhfouss Cheikh Modou Makhfouss Tayba ak Tuuba mu ne fula ak Tayba Sëriñ Masamba xari may la sanba Tayba mooy sa maam fa kër Bamba si gi di gaale maa ngi leen di jaale doonay sa maam ja kay kay faale atiix si gi leen gaale nooru diine Cheikh Awa Balla Mbakke may faalu yal na leen yàlla yàgga faale bi soorati tawbati wal infaali Cerno mu ndaw ak Amadul Mbakiyu maa ngi leen di jaale sang bay waliyu mam taala Mbakke maa di jaale donay sa maam ja kay ka faale mammoor sigil ndigaale caat mi taawi faale seexay sa baay cernoy sa maam yal cerno yàlla na ngay maam cheikh moodu awa awa balla maa ngi ñaan lu njaboot gi yàgg seeni sëti caat lu yéen maa ngi taxawlu yéen muriiti daaro danaa ko yóbbu ca rajo ndakaaru sala alaylaw bi salaami bi salaami wa alihi wa saabi axlaami sala bi salaami wa wa saabi axlaami